barke borom Tuubaa barke xasida yi mbokki jullit yi mbokki murid yi rawatina mbokki Baye Fall yi ci ni ngeen ko gisee mel na ni ñu ngi fii ci buntu kër sëñ Cheikh Fall jëm xalif général des Baye Fall ci liggéey bi nga xamante ni ji fii ci kër sëriñ bi ci ndigal li nga xamante ne am nañ ci sëñ Cheikh Fall jëmb xalif général des Baye Fall ci war yeesalaat kër gi nga xamante ni mooy kër boppam gi si ginnaaw ba ko waa daara daara ji saytoo te gën koo bëgg a dëppale jamono liggéey woowee nag waa daara ji ñi ngi ci waxtu wu ñu xëyee ci lay ne ci ni ngeen gisee liggéey bi ci fi mu toll ni miir kanam yi nga xamante ni moo fi nekkoon daaneel nañ yéen ba def ci yeneen miir yoo xamante ni mooy miir yi ngeen jàkkaarlool nga xamante ni tabax nañ ko ba noppi euh, raax nañ ko li ci des mooy teg seenage kaw bi ak def yi ginnaaw gi loolu bu daara ji jógee ci loolu miir bi ci ginnaaw moom la ñuy daaneel moom it dëppale ko miiru kanam bi ci décoration ak yëpp rek bu buñ jógee ci loolu daara ji wala jëm ci mbaar mi nga xamante ni moom la sëñ Cheikh Fall jëmb di toggee ndog yi nga xamante ni moom lay yot sëñ Muntaxa mbaar moomee dañ koy xeddi liggéey ko moom it dëppale ko jamono ginnaaw liggéeyu mbaar mi nga xamante ni dañuy dem ci kees yi nga xamante ni moom la soxna yi dëkkee ñu moom it ñu wàccewaat leen dëppale nag jamono liggéey bi daal eh, bëgg nañ kër gi yëpp la ñuy yeesal ba mu des ñu bàyyi fii eh, kees gi nga xamante ni moom la Serif Assane eh, ta defoon ci kër gi boobu desu ko laal ak mm, kii kees gi nga xamante ni sëñ Fallou Fall sëñ Modou Aminta moom la liggéeyaloon sëriñ bi ci ba mu doonee maam Cheikh Fall yi ñaar yu dul yooyu des na ko des na ko yeesal nga xamante ni liggéey boobee la eh, waa alal maam di taxaw ci jamono ji fii fii ci kër sëñ Cheikh Fall jëmb gi. ndigal li ni mu ko ci sëriñ bi ñoo ñëwoon ci kër gi saa suñ fi ñëwee di dem di indi addiya di dem. si yàgg ñu jékki-jékki am yéene xam ne sëriñ bi telul dara boppam lépp mu am sëriñ bi rek ko moom muy ab sëriñam ci lañ xalaat ne kon kër sëriñ bi ñun taalibe yi ñoo ko war a jagal waaye duñ def lenn nag lu ci ndigal ci lañ ko laajee ndigal ci bëgg a yeesal kër gi ci la joxe ndigal na am ngeen ndigal li yeesal kër gi ndigal loolu nag kon day wàññeeku ci moom rek moo ko joxe. waaw daal Aliou Cheikh Fall seen yéene ci yeesal kër gi miir bi la woon. biñ ñëwee ci lañ xaat ne miir bi miir la boo xam ne war naa mën a demee yees na leen ci lu dul nii biñ ñëwee ci lañ xaat ne ba tey it di koy yeesal déjji miir bi benn yoon da koy gën ci lañ daaneel miiru penk bi ak wala daaneel miiru sow bi ci lañ ko commencé di yeesal loolu ci biir lool nag ci lañ dem ba amaat ndigal ne yeesal moom kon lépp dafa war a yees ci lañ amaat ndigal ne kon na kër gi lépp maase ñu yeesal lépp ba mu des mbaar mii ñu toog ti mbaar yoo xam ne sëñ Fallou Fall moo ko defoon ak keesu sëñ bi xam ne Sëriñ Assane moo ko defoon kon mel na ne ñu ngi ci yeesal miiru kër gi buñ ci jigee ñu ngi dal ci mbaar mii xam ne si lañuy toggee ndogu yi war koo yëkkati buñ ci jigee ci kees soxna yi lañ jëm n kaddu yoo xam sax sëñ Omar Dumbuye yoo xam ne mooy kaddoom wax na ci turoom ci ni mu ko bëggee moom ñëpp jariñoo ci ba tax na kon ndigal loolu ñëpp ñu ngi ci woo ñëpp li ñuy wax ne képp kuy wax asalaamaaleykum la ilaha illallah di jullit Euh, di murit rawat na di Baay Faal ñu ngi lay woo ci liggéey bi rawat na njabootu Cheikh Rafal gi fukk kër yeeg benn yëpp ñu ngi lay woo ci liggéey bi ndax liggéey la boo xam ne jullit ñëpp ko bokk murit yëpp ko bokk Baay yëpp ko bokk kon ñu ngi ci ñëpp ci ndigalul sëriñ bi te xam ne euh, liggéey boo xam ne ku ci def sa dërëm danga nga jariñu ku ci sa ñaar dërëm da jariñu liggéey la boo xam ne kum neexit sax da nga jariñu liggéey la boo xam ne adduna gépp xaj nañ ci àllaaxira gépp xaj nañ ci ñoom ma tax ñi ngi ci fasal nag képp koo xam ne moom moo njëkk a jébalu ba kii mujj jébalu ki njëkk a faatu ba kii mujj faatu waa barsàq gépp ak waa adduna gépp ñu ne fas ci liggéey bi ndax attan na ko. waaw di leen jaay jëfal yéen ñëpp nag tey woote nag ah, li may wax saa su ne nag ku war a xëy di ñëw buñ la woo war ngaa yokk saw xel koo xam si ne dangaa war di joxe buñ la laajee kon war ngaa gën a gaaw ci joxe ba te sëriñ bi kat jëmm la joo xam ne léppam njariñ la lor du ko xam bay ñëw fi moom tey damay wax saa su ne. ki mën a làqu moom ku làqu ci moom raw nga leneen lu dul loola kon nañu xam ne daal ndigal moom saa bu jógee njariñ taxaw na te ku jëf ku ne nag kookaay jëriñu waaye foo fekkee fu ni jëfee ba noppi bokkoo ca ñay jëf boo bokkee ca wax ja yaa ca boole sa bopp waaye kenn boolewule ca ñu di ci woo nag képp koo xam ne am nga yéene liggéeyal sëriñ bi mbaa nga ne bu fi maam Cheikh Ibra Fall nekkoon ma liggéeyal ko kon bu fi sëriñ Cheikh Jëmb Fall nekkee war nga ko mën a liggéeyal te xam ne boo ko liggéeyee maam Cheikh Ibra nga liggéeyal loolu daal la ñuy dolleewaat tey soññ nag képp koo xam si ne rek am nga yéene liggéeyal sëriñ bi bunt boo ko mën a fëggee ci xeeti bunt yi maanaam numéro yooyu moom mel na ne soxna Diagne Cissé dana ci ñëw bu ko defee ku ci bëgg a tàbbi foo jaar fu ne rek maanaam bu soobee yàlla loolu dana yegsi. ñëpp xam na ni kuy gëstu yoonu murit maam Cheikh Ibrahima Fall bu ko nit mas a a indil ndigal lu jóge Sëriñ Tuubaa li muy njëkk def mooy neexal kooku ba noppi doo ko jublu ci liggéey bi ñun loolu war naa doon jàngat bu rëy ci ñun jàngat bi mooy dañuy xam ne kon ndekete li am solo ci àdduna ak àllaaxira mooy liggéeyal borom Tuubaa kon ku yàlla defal tew feex ba nga mën a am tawféexu sëñ Cheikh Fall jëm bu yëkkati ndigalam teg ko sa loxo ba pare jox la ndigalu nga yaatal ko ngir ñëpp mën a jariñu kon day mel ne ñun war na noo góor góorgóorlu ci liggéey bi waaye war na noo nanoo góorgóorlu ci yaatal gi ngir xettali jaam ñi ñu ngi woo bopp di ñëpp ñu ci liggéey bi nga xam ni tawféexu borom tubaa la te bokk ci sadaxaatu jaar yi nga xam ne bu nit ki duggee biir bàmmeel ba léppam taxaw lii ñu doon defal maam Cheikh Ibrahima bokk na ci li la fay fekk kon loolu appel la boo xam ne ñu ngi koy def euh, mu jëm ci murit yëpp jëm ci Baay Faal yëpp ñu xam ni ne tawféexu àdduna ak àllaaxira la kon ñuy soñu ñëpp rek ñi nga xamante ñoo nekk ci réew mi nekk ci biti réew euh, ñëpp rek ñu ngi leen di soñu ñi ñu jàpp ci liggéey bi ndax li nga xamante ni war nañ ko wax lépp rek jëwriñ fi toog wax nañ ko kon daaka na xam naa dañ ciy sof rek euh, ñi nga xamante ni bëgg nañoo euh, tàbbal seen ñaq ci liggéey bi

01 75 19 00 01 ci turu Mbaye euh, Korea euh, moom euh, di porte parole daara ji waaye ba tey bu dee yeneen transfert yi mën nañ ko dugal ci turu Omar Seck moom moo nekk ci carte d'identité moom Omar Seck di jëriñu waa daara ji di àlalu Mame Cheikh Ibrahima Fall murit bu mag ba. taalibe bu ne ab sëriñam rek la war tal loolu nag tal sëriñam gi mu tal sëriñam moo tax ji ji wutul sax saako ciment def ko ci këram gi. ndax jamono bu ne ak li muy yóbbu ko sëriñ bi li muy yóbbu ko sëriñ bi su ko xaajoo ñetti xaaj benn xaaj ba rek mën naa defar fii li mu ko bëggee ndax kenn umpulewul na gàmmu gi jàll bi ñu gàmmu pare yóbbu na juróom fukki million ci sëriñ Mountakha ak yeneen ak yeneen juróom fukki million ci kër gi kon loolu daanaka tëlul moom tëlul këram boppam sëriñam la tal kon ñun donge yi ñoo war a tal suñu sëriñ kon nag su jamono demee ba xam ni kooku ak lim liggéey ci yoonu murit am lim liggéey suñu Tuubaa xam kër Sëriñ gi ñuy jox Mbàkke di stade bi lan fa defagoon ëpp na téeméeri million di dem fii ci héliport bi li fi def ñëpp gis nañ ko kon koo su demee bay liggéeylu këram li ko li ko sëriñ Mourtada waxee léegi ñun war nañoo gore delloo ko njukkal defar këram ga mel na war a mel te fii ba addunay tukki ñun suñ am woon xaat boobu moom du ko wax mukk dañ koy wax kay mu xam ne kon mu mu jox ñu te ndigal ngir bëgg ñu jariñu waaye moom li muy am am na ko pare li muy def def ko pare kon ñun ñu jariñu mooy ñu defal këram gi ba mu mel ni mu bëgg mel ndax moom kër sëriñ defal na ko ba mu mel ni war mel kon loolu kiimaan la ci koo xamante ni kiimaan la ci yéem kiimaan la ci koo xam ne képp koy na bëgg ngaa jariñu war ngaa mën a jariñoo ci loolu